asalaamaaleykum mbokki xarit yi internetu 7actu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam alors comme ni koy baaxoo di defee saa actualité amee ñu jël suñu micro ñun waa set actu taalal ko ñi nga xamante ni ñoo ci war addu àddu euh, ñuy wax ni ki nga xamante ni euh, mooy Sonko Adji Sarr boo xoolee actualité politique bi jamono ji ñoom ñoo ko yor Sonko génn na def discours am Adji Sarr génn def discours am ki nga xamante ni moo nekkoon avocat Adji Sarr moom it euh, génn na wax muy maître El Hadj Diouf sëñ bi yow defoon na àddu woon nga ci ay kàddu ñu bëggoon kon tey jii fi situation bi tollu tàggatémbe euh, lan moo ci sa jàngat. yëfi politique mooy sama jàngat pour man lépp politique la euh, président Macky Sall mooy président ku lu Sénégal mooy njiitum réew maa ngi koy xamal ne ko kilifa day tëddee na jaaxaanaay kilifa wuta am parparloo ni muy jàppale kee noonu la war a jàppale kee ndax ñoom ñëpp ay njabootam lañ kilifa nag dafa metti boo ko doonee lu ne di ko dégg lu ne di ko daj waaye na gën a gumba gën a tax gën a lu te bu ma soon li ko kilifa diine waxoon muy wax ji na fay bu ma soon mu fay wax ji bu ma soon mu fay wax ji bàyyi Ousmane Sonko mu nekk si jàmm ak salaam man anuma ci kenn man duma politique politique uma waajuma politique ndax gisuma woon sama waajuru góor doon ko def ku dikk si man nag dima ñaanloo dinaa la ñaanal la ma la sañ a digal naa la ko digal euh, yëfi politique képp képp képp képp laa gis ndax wax naa ko léegi lii li lay waral ne maanaam nga li lay xamal ne maanaam yëfi politique la. Ah, soxna soo Sarr. njëkkee génn wax am benn ki naan avocat toog si wetam ngóor soo sant Diouf di ko gàggante su laa njëkk xam ne lu jiit loolu sax xam naa ne maanaam nga yëfi lépp politique waaye waaye loolu bi dikkee dafa gën a leer sama bopp. ne lii yëfi politique la te gëm naa ne président loxoom génn si te bu ma soon mu génn si loxoom fay lépp bàyyi Abdou Karim Wade mu njubbi siwaat si réew mi jéggal ko jéggal Khalifa Sall jéggal Ousmane Sonko wax ji fay amaana am na nu mu doon doxalee moom président benn Sénégalais du ko mere waaye fët bi mu njëkk a def mooy jàpp Karim tëj commencé nag di rëq ndigg yi rek di tëj te loolu bu ma ko jege woon maanaam nga dama naan loolu loolu gi bu ma ko bu jege woon bu fekkoon man waa bokk ci ñi ko ñu ko jege laa bëgg a wax dama ko yooyu yëpp si dugg na Karim rakkam la Khalifa Sall bu du rakkam magam lay doon Ousmane tamit noonu dañ bokk ndey bokk baay ànd liggéey senegal bu fekkee rek ne senegal rek moo leen ñor leneen ñoru leen loolu senegal nañ bokk nañ bokk ndey bokk baay pour liggéey senegal soxna soo saar nag bu ma soyoon it bu ne mënut a ñibbi si ay mbokkam waajur bu góor bëgg na koo gis suwaal so soriwul boo eggee mbuur ma ma ne na egg nga suwaal egg nga jifir bu xasee ba teguwaat si loxo waajuram ay waajur mën nañ ko orjandiwaat tegaat ko si yoon fu mu bëgg a dem ma ngi dem bu mu ne mënumaa génn mënumaa def nangam nangam nangam mën naa ñu bisuwaat si ay mbokkam ndax waajurum soxla na ko ay mbokkam soxla nañ ko président na fay wax ji bu ma suñu daal na fay wax ji waaw naa nag bi ma si waxee bi e, si màggal gi bi ma si waxee jot naa say appel yu bari yoo xam ne dañ ma see addoon moo tax mu bëgguma di sori si mbir mi waaye nag du ma ragal sëñ Baaraay sama maam du ma ragal du ma tiit du ma raf ku xamul waa guy min dégg te tamit du gone kenn waaye nag ginnaaw ñenn say kilifa wax nañ ne del xam euh, yenn kàddu yi nga yi nga këfe nag sa aju mu mënuñu lu dul jëfe seeni ndigal ndax li tax may wax ni may waxee nii damay bañ ñi xamut jàpp ne président Macky Sall damaa woo si broq jox ma seen yooyu ñuy joxe dëgg mooy président Sénégal waaye soxla moo koo gis li ma sama maam sëñ waa defal doy na ma sëkk du ma fëgg benn bureau jàmbur man Cheikh Abdoulaye Mbacké Baye Fall docteur docteur yi du ma fëgg benn bureau jàmbur amul génn kilifa gu mën taxaw fii ne dama mas naa fëgg biroom amul te ci xamante bari na trop. waaye bu nu déggee kàddu yi nga ne euh, suñu président ki na libéré ki nga xamante ni mooy Sonko ndax lépp politique la kon daa mel ni euh, li ñuy tuumaal ki nga xamante ni mooy euh, Ousmane Sonko loolu amul. ci li ma gëm. sëñ Serif est-ce que xam nga ne maanaam que coow li. wanoon nañ ma ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg coor yi wanoon nañ ma ko bu yàgg yàgg yàgg maa doon koo xam ci ni lu ñu mënte woon it du benn site internet wala wala benn télévision naan la gis naa nangam wala gis naa nangam bu ma neexoon woo Ismaïla mii na ko Ismaïla ba mu ba mu na ko kaay nangam ak nangam nangam. Ismaïla ñëw jël si ko daal koy tasaare ñu si bëri samay xarit lañ waaye moom moom moo doon koo xam si ni moom lu mu bëgg si moom mu am ko waaye ba tey woo ma ko ne ko ah gis naa si nangam ak nangam ak nangam nangam waaye coow li moom avant muy door lañ ma ko wanoon waaye man gëm naa ne sama sama jëm bopp mbiri politique képp la te état nekk si ginnaaw. bu mu nag moo nekk ci ginnaaw coow li te bu ma soñoon nag mu génn rocc waat si loxoom ni ko kilifa diine yi ñaanee ak ni ko suñu Muntaxa waxee coow li mu jëm kaw noo mën a def ba ba coow fay da nga ko fay bu ma soñoon mu def loola. alors ci sa ci sa xalaat euh, sunu sëñ bi nga foog ni euh, lan moo tax kon euh, Ousmane Sonko ñoom am acharnement ci moom dafa am benn politiquement dafa am lu muy gàllankoor ki nga xamante ni mooy Macky ba tax mu mën koo teg problème yu métti yi wala lan la demee noonu ba nga foog nii complot la ci moom politiquement. ni Ousmane doxale gars buñ Sénégalais yi diaspora bi. buñ jàpp ne ma ànd ak nag ma askanu Sénégal laa àndal man Sénégal laa bëgg senegal laa gëm ànduma ak Sonko ànduma ak Macky ànduma ak Abdou Karim ànduma ak euh, Khalifa Sall ànduma see kenn Sénégalais laa àndal yi nga discours jàll ba mu ko waxee walfu ba mu su jógee la ku ne dug di ngàngale te amaana ba muy def discours am na ñeneen ñu nekkoon si yeneen télévision doon ko waaye bu ku xool internet bi vie yi Ousmane xam bokkut ak ñeneen yi Sénégalais dañoo bëgg ku leen wax dëgg bañ di leen nar te Ousmane de nii mu jugtee bu ko bàyyiwul lam bëgg dina ko am waaye nag ngala lam bëgg bu ko amee ngala na lépp tege si yoon waaw ngala na lépp tege si yoon ndax da nga politicien boo xam ni day nekk di ngal-ngal di ngal-ngal di ngal-ngal ba am lam bëgg wan ginnaaw Sénégalais yëpp commencé doxal mbiri boppam ni sa waay dikk ni ni sa waay def ngala bu dikkee toog bu mu def ne ne yii fi nekk waaw